Petersen boo dugg see yile table ñoo njëkk attirer sa attention yile jaaykat nag dañoo profiter ci weeru koor gi ngir ak dugg ci njaayu produit première nécessité yi. mu nekk li liñ daan gis seen bopp bu baax waaye nag xeen gi lee bokku ci. tokki laa nag demeetul noonu xam nga dëkk bi moom moo sensé léegi wax dëgg yàlla. ah njaay mi ndàng ndànk rek comme par rapport ak ni mu doon demee quoi. essence moom xam nga client yi bu njëkk leen daan jënd loolu bari mais essence ni par benn benn la. yii lay jaaykat ñu ngay ñaxtu cherté wu njëgu yii lay denrée. ndax prix yi moo cher léegi yombul léegi de bu njëkk moom yomb na waaye léegi yombul moom. mais essence ni moom bagage yi cher cher la def cher daanaka am client yi maam li nga war a jënd dañu lay wax maanaam tey li ñu prix bi ñuy jënd fii moom la ñuy jënd ci bitig te ñun par rapport ak ñun waa bitig waruñoo mën a tolloo. mu nekk ab jafe bi nga xamante ne client yi itam. daal nañ ko nemmeeku. suukar ren dafa seer soit que suukar bi nga amee vingt huit mille cinq cent instant mi ngi trente cinq mille kilo suukar sept cent franc lañ koy détaillé te six cent franc doon jar tàndarma kilo mille franc keesu six mille instant bi yaa ngi ko jënd kon lépp a métti. si seen wàll ñii di grossistes yi ñu ngay dalal xelu askan wi lu jëm si. approvisionnement wu marché bi. non marché moom macha mooy dox baax a baax xëy na tuuti booy lu manqué moom ay suukar rek moo xaw manqué nii quoi mais jus moom macha a ngi jox. sucre baa ngi dox mayonnaise baa ngi dox clientèle am na li ma la wax instant yii nekk nii quoi lu mën nañu ko wax ci marché bi instant yii nekk nii. yile jaaykat seen njëg moo gën a yomb bu boutiquier yi mu nekk li nga xamante ne ñu bëri daal di am xel ñaar si qualité wu yile produit lii ni mel tax ñoom jaaykat yi ñoo ngay dalal xelu client yi. waa ñu ngi koy vérifier bu baax ñu ngi vérifier bu baax fi ñu toll nii moom macha allah waaw contrôler gars yi ñoo contrôler dem. addu jëmale ci lakk wu métti yu am ca marché wu Tivaouane Peulh lu toll ci fanweer ci ay cantine takk jëppet koppar gu bare bari xayma ko ci ay millions moo daal di nax say duñu ñu sukkandikoo ci commerçant ya jàppale ne ñoom ñi nag ñoom bëri woon na rek ay ndugg ak i xeetu ñam yu nga xam ne jëndoon nañ ko ngir waajal bu baax a baax waaye itam gën a sóobu ci weeru koor gi mën koo jaay waaye daal ñoom ñi lépp la ñu daal di ñàkk nañ ko gën a yaatal ci xibaaru nasaraan yi ci kanam tuuti ak